ci noonu soldat bi daal di laaj waa ji ne ko ndax gisu leen waxambaane yooyu di Yamliixa ak Galanos ak Maximilianos waa ji tontu ko ne ko ñooñu dey gëj naa leen gis bi ma leen mujjee gis daal ñoo ngi woon ci marché bi noonu buur bi nga xam ne mooy di Xiyaanos daal di yebal soldat ñu leen di wër ngir bu ñu leen gisee jàpp leen àndi leen ci prison yi su fekkee ne delluwuñu ginnaaw benn yoon ci yoon bi ñu jël ñu daal di leen rey waaye kenn ci ñi nga xam ne dañoo gëm nekk ay masihiina dégg wër gi nga xam ne buur baa ngi leen koy wër noonu waa ji taxaw daal di tiit ndax yéenewul benn yoon ñu jàpp leen ndax ñoo bokk lu ñu gëm noonu mu daal di war fasam dugg ci àll bi di daw ngir bu leen gisee man leen a wax xabaar bi noonu la waa ji waree fasam di wër ci dëkk bi ngir bu gisee ñoom yam liixa wax leen xabaar bi jamono yooyu nag ñoom yam liixa ñoom ña nga taxaw ca marché ba dajaloo ñoom ñëpp di waar nit ñi di leen delloo ci yàlla jamono yooyu ñoom ña ci seen woote bi ànd ak loolu yëpp nag waa ji moom mi ngi war fasam di leen wër bi nga xamee ne daw naa dawa dawa daw ba agsi ci marché bi jege leen loolu mu daal di yuuxu yam lii xa yam lii xa noonu yam lii daal di koy dégg bi mu agsee mu daal di koy wax xibaar bi ne ko buur bi di di xëyaanoos mu ngi leen di wër pour jàpp leen yam lii xa nag daal di wax gaayam yi ne leen léegi toogaay amatul nañu def pexe ngir génn dëkk bi te kenn duñu gis jamono yoo xam ne ña nga tëj frontière dëkk bi ci noonu nag ñu daal di def pexe pour génn dëkk bi waaye mu nekkoon la jafe woon loolu ndax dëkk bi dañoo tëj frontière yi kenn amul fu mu jaar te it seen tur bind nañ ko ci dëkk bi ngir dañu leen di wër seeni photo ñu taf ko ci mbedd yi buur bi di di xiyaanos joxe weexal ci képp koo xam ne gis na leen mu àndi leen ndax ñoom ñu am doole lañ ci dëkk bi ndax mbokk lañ ci buur bi tey am nañ garaat ci dëkk bi te ay waxambaane lañ yoo xam ne ñoo nekkoon conseiller buur bi ñooñu ñoo wëlbatiku nag nekk ay jullit iman nekk seen biir xol tax na buur bi mënu a am jàmm benn yoon loolu daf leen a gis ba jàpp leen ci jamono boobu nag waa dëkk bi moom ñu ngi ci tiitaange ak njàqare ndax jaxle nañu loolu ndax buur bii di di Xiyaanos daf leen a not kenn amul sañ-sañu wax li nga bëgg wala nga wax li nga gëm ñoom nañu gëm xërëm yi nañu jaamu xërëm yi noonu waa kër gi di waxtaan kenn ci ñoom ne fi mu toll nii de ñëpp a jaaxle sama dëkkandoo bi barki démb lañ ko fi jëlee yóbbu ko ci prison yi ndax moom dafa nekkoon machihina waaye dégg naa dañ ko mujjee sax rey noonu ñëpp di waxtaanee mbir mi mu nekkoon xibaar bu tasaaroo woon lool ci dëkk bi jamono boobu nag ñu ngi jàpp waa ji nga xam ne muy waxambaane bi waroon fasam ngir xettali ñoom yam lii xa bi mu déggee ñu di leen bi xibaar bi àggee ci soldaar bi soldaar bi ànd ak ñi nga xam ne ñooy ay àndandooram ñëw ba ci moom ci kanamu mbooloo mi ñëpp taxaw mu nekkoon lu daw yaram lool ndax waa ji nga xam ne dafa weddi xërëm yi nekk ab jullit nekk masihiina te xeetali woon ñoom yam liixa takk nañ ay cëram yëpp dal di koy summi toroxal ko noonu soldaat bi ne ko léegi nag weddil yàlla ji nga nekk nga nangu ne buur bi di di mooy yàlla ju kawe ji moom ak xërëm yi soo ko defee danañu la jéggal nga dellu ci sa njaboot bi ñu waxee loolu waa ji moom daal di bañ daal di wax ne maa ngi seere ne amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu ko di dëgg ñàkk jaamu ko di fenn ku dul yàlla. jamono yooyu buur bi di di xiyaanos moom joxe na ndogal ngir ñu rey képp kuy machine yi na nee na léegi jaratul sax ñu di leen tëj ci prison yi nañu leen rey xibaar bi tasaaroo. taxoon ñëpp ñoo xam ne jàpp nañu leen ñu tiit lool ndax ku ñu jàpp ci ñoom bu ñu lay rey dañu lay yeew daal di lay taal ba nga jeex ca kanamu mbooloo mi. noonu soldaar bi ne ko buur bi gars yi de wër nañ leen ba sonn mënuñoo fexe ba gis leen buur bi daal di mer daal di ne nañ leen wër fépp fu ñu leen gis nañu leen jàpp rey leen ñoom nag ñoo ma gën a merloo ñoo tax sax ma joxe ndigalu rey gi ndax kat gars yi waru ñóora ci kenn fépp fu ñu mën a nekk tëj leen frontière dëkk bi bu ñu génn. noonu soldaar bi dal di jox ndigalu ki nga xam ne mooy njiitu arme bi ne ko waxal gaa yi nañ leen wër bu ñu bàyyi fenn kër gu ne nañ fa dugg fu ñu leen gis rek nañ leen jàpp ñu rey leen. buur bi joxe na neexal ci képp ku leen gis dénoncé leen. noonu la gaa yi làqatoo ci ginnaaw montagne bi jamono boo xam ne soldaar yi ñoo ngi leen wër ci àll bi ñoom nag ñoo gis soldaar yi waaye soldaar yi ñoom gisuñu gaa yi fépp foo xam ne ab xuur la wala montagne soldaar yaa dem di wër gaa yi. jamono yooyu gars yi ñoom ñoo ngi ci àll bi di làqatu ànd ak seen xaj bi di dox di wër wër gu metti jaaxle gisuñu lekk ci yoon bi gisuñu naan xiif ak mar dab leen ci yoon bi waaye ñu jaaxle lool yaakaaruñu kenn ci àll bi ku dul yàlla daw nañu ngir yàlla waaye làqatu ji nañ ngir yàlla sunu boroom jamono boo xam ne dëkk bi moom kenn toogul fit yëpp dem nañ ndax buur bi di Xeyanos amul benn yërmande ci koo xam ne da ngaa nekk ab jullit nekk na noonu la gaa yi toppee àll bi di wër xamuñu fan lañ jëm waaye lépp rek ñu waree ba dëgg ñi nga xam ne ñooy soldaar yi seen tànki fas yi ni ñuy dawee ñu daal di làqatu ci ginnaaw garab wala ñu làqatu fenn ba ñu romb ñu daal di continuer waat seenu dox jamono yooyu naafiq yi ak espion yi ñoo ngi wër ci dëkk bi ngir yàkkamti gis leen kër gu ñu dugg di laajte ndax ña nga fa fu yaakaar ne fa lañ war a nekk rek gaa yaa ngi fay dugg di leen wër waaye ñoom ak coono yi ñu del ci àll bi yëpp ñoo ngi ànd ak xel mu dal ak wóolu yàlla ak doyloo ko ak yaakaar yàlla sunu boroom noonu la ñu jàppee seen benn xarit boo xam ne seen dëkkandoor lañ buur bi laaj ko ne ko sa gaa yooyu di say àndandoor ndax xamoo fan la ñu nekk waa ji daal di wax ne man de gisuma leen tey it fan lañ nekk ndax gëj naa leen gis noonu buur bi ne yow. kàccoor nga ni ma la gisee ni warkat nga waxal fan lañ nekk waa ji noonu lañ ko xoqatalee ci kanamu buur bi waaye nanguwul wax benn yoon fu gaa yi nekk donte ne moom sax xamul ñoom fan lañ nekk noonu buur bi daal di digal soldaar bi ne ko rayal waa ji noonu soldaar bi daal di yëkkati jaasiyam daal di koy cor daal di koy rey mu nekkoon lu doy waar loolu buur bi di di xiyaanos amul woon benn yërmande ci ñi nga xam ne ñooy masihiina yi noonu la gaay di doxee ci àll bi ba dajeek benn sàmmkat sàmmkat bi neen dal leen ak jàmm yéen sama mbokk jullit yi noonu yam li xam ne alhamdulilah sant naa yàlla ndax yow dañ ñoo xam mu ne ko leen waaye seen histoire dégg naa ko mu tasaaroo ci dëkk bi yam li xam ne ko ñun dey dañoo jaaxle lool ndax defuñu tooñuñu te it yàqaluñu kenn tuuruñu bakkan ñun daal lu dul gis li nga xam ne jàpp nañ ne muy dëgg rek ñu gëm ko noonu lañu di xiyaanoos tegee fitna ba ñu daw ñëw ci àll bi ngir làqatu fi ñu toll nii amuñu fenn fu ñu jëm. fi mu toll nii mënuñoo génn dëkk bi ndax dañoo tëj frontière yi waaye àll dëkk bi ci lañ mën a yem. fi mu toll nii nag jaaxle nañ lool amuñu benn pexe amuñu itam benn xalaat lu dul yaakaar yàlla ak doyloo ko da xamoo pexe boo xam ne bu ñu ko defee danañ génn fii. bi waxee loolu sàmm bi daal di koy tontu ne ko yàlla kenn la te képp koo xam ne jug nga ngir ànd ak sunu borom tabaaraka ko taala ngir topp yoon wi nga xam ne moom la yàlla digle di nga sonn ndax dëgg moom. njëlbeen gi day métti waaye mujj gi day neex lool mu ne waaye nag gis naa bërëb boo xam ne jàpp naa ne di ngeen fa mën a noppaloo boo problème bi jeex noonu yam di xalaat ko ne ko bërëb boobu ndax ab kër la mu ne ko du kër sax waaye jàpp naa ne mooy tene kër sax ci yéen te it muy ëpp sécurité ci yéen ndax ab xunt la boo xam ne maanaam kaxfa la goo xam ne doj la bu am am xur ci biir xur boo xam ne day mel ni saaru pax pax mu yaatu boo xam ne itam suuf su nooy moo fa nekk amul ay xeer yu lay sonal amul dara lu lay sonal ndax man léeg-léeg bu ma daan sàmm fa laa daan dem di noppalu jàpp naa ne bu ñu fa demee di fa mën a noppalu noonu gars yi daal di ànd ak moom ci loolu sàmmkat bi daal di leen may soow may leen mburu ñu lekk ginnaaw boo xamee ne dañoo xiif lool yàgg ci àll bi noonu nag ñu ànd ak sàmmkat bi ngir dem ci bërëb boobu mu leen tegtal. bi ñu agsee ba gis xunt bi kenn ci ñoom daal di wax ne bërëb bi day bërëb bi yéeme na lii de mësumaa dox ba gis ko xaw ma ne àllu dëkk bi amoon na bërëb bu mel nii noonu sàmmkat bi daal di koy tontu ne ko man day fii lay noppaloo lu bari bërëb la boo xam ne dafa laqatu ci ginnaaw montagne yi mën nga fee dugg ba génn te kenn du la gis noonu itam lañu àndee ngir jëmale ci bërëb boobu ngir mën faa dugg histoire bii di asxaabul kahfi ak wute gu bëri am na ci limub gaay yi nga xam ne ñoo duggoon ci xunt bi ndax alxuraan dafay wax ne am na ñu wax ne ñoom ñett lañu seen xaj bee lañ ñeenteel am ñu wax ne ñeent lañu seen xaj bee lañ juróomeel noonu nañu toppee lim bi ba àgg ci juróom-ñaari lim waaye yàlla suñu borom moom rek moo mën a xam lim bi ñaata lañu woon. ci film bi nga xam ne nag origine bi arabe la ñu reprendre ko en wolof dinañ ci misaal ñetti jëmm ak seen xaj bi muy ñeent waaye yàlla sunu boroom moom rek moo mën a xam seen lim dëgg-dëgg ñaata lañ noonu lañu doxee ba agsi ci xunt bi mu nekkoon bërëb boo xam ne bërëb bu yéeme la woon ci jamono boobu bi ñu agsee nag ñu daal di dugg ci biir xunt bi yam li xaa daal di wax ne lii de mbir mu yéeme la bërëb bi dafa mel ni dañ ko waajaloon ngir ñun xoolal ni mu setee benn pepp xeer nekku fi yàlla daal buur bu màgg la noonu Maximilianos daal di ñaan sunu borom dal di wax ne bismillahi irrahmani irrahim rabbana aatina min ladunka rahma waaye yëx lana min amrina rachada sadaqa allahu alazim noonu la ñu nekkee ci biir xunt bi yàlla dal di sànni benn ngelaw ci biir ngelaw lu sedd beneen fa ngelaw li fekkee ñu mel ni ñu gëmmantu noonu ñoom ñëpp daal di nelaw ci biir nelaw nañ fa diir bu yàgg diir bu yàgga yàgga yàgg yàlla nag ci xunt bi feeñal na fi kemtaan bu yéeme ndax ñoom dañoo tëdd ci biir nelaw fi ay at maanaam jamono ba jamono saison ba saison nawet ba nawet at mu jot benn yoon lañuy ñuy wëlbatikoo seen cër yi dara yàquwu ci seen yëre yi dara yàquwu ci seen xef yi yokkuwul seen we yi màggul saf ñoo dem wanag saf ñoo tur ndox xiifuñu maruñu noonu la yàlla téye seeni mbir téye temps bi ci ñoom seeni karaw yokkuwul dara yokkuwul ci ñoom céey sunu boroom ak a yéeme seen xaj bi itam ma nga toog seen wet di nelaw yàlla daal kenn la ñu demee ñeent fukki at dëkk bii di Philadelphia yàlla daal di fi wàcce li nga xam ne muy mbugal mu tar muy prendement de terre di Xiyaanos ak ay soldaaram ak ñi àndoon ak moom ñëpp daal di mëbax ci biir suuf si ñi nga xam ne ñoom ñoo mucc mooy ñi nga xam ne ay jullit lañu woon gëmoon yàlla ba noppi gëmoon ñi nga xam ne ñooy masixiina yi nga xam ne ñu néew ñoo desoon ca dëkk ba lim néew boobu desoon ca dëkk ba nag mujj defaraat dëkk ba bërëb yi ñu daan jaamoo xërëm ñu soppi ko def ko ay bërëbu jaamukaay yàlla dëkk bi soppeeku nekk dëkkub jullit ay at di jàll ay saison saison di jàll nawet ak nawet di jàll seeni sët di ñëw ba mu mag ñetti téeméeri at waaye ànd ak xew-xew yooyu yëpp nag gaa yi ñoom fa ñu nekkoon ña nga fa rek tëdd di nelaw di wëlbatiku at par at seeni jër dara yàquwu ci seen yaram itam dara yàquwu ci bi mu matee lu ëpp ñetti téeméeri at nag sunu borom cig màggam daldi yeegaay ci seen biir nelaw yi maanaam def ngelaw loo xam ne ba mu fa jaaree rek gaa yi daldi yeewoo xista bi nag nekk aaya ci nit ñi nekk waraate bu yéeme ci jullit yi gëm yàlla noonu gaa yi daldi yeewu bi ñu yeewoo daldi jug taxaw xoolante kenn ci ñoom daal ne waaw xam naa ne ñun day nelaw nañ fi diir bu yàgg waaw ñun ñaata temps lañ fi nelaw sax est-ce que nelawuñ fi benn fan sax wala ñaari fan kenn ci ñoom daal ne ñun day ragal naa ne nelaw nañ fi lu yàgg ndax nelaw yi moom xam naa ne nelaw yu xóot la nelaw yu neex la kenn ci ñoom ne man de damaa xiif max ak yam lii xaar daal koy feelu nekk ñun tamit dañoo xiif mu ne waaw te ñoo dem jënd luñ lekk te duñu gis kenn ki ne wóorul de moom ndax ki nga xam ne mooy di Xiyaanos ak soldaar mi kàccoore nañ lool fi mu toll nii li ma wér mooy wër nañu ba jege xunt bi xanaa kay dañoo gisul rek xunt bi moom bërëb bu am kaaraange la ci ñun te jàpp naa ne bu ñu fi génnee ba ñu gis ñu sunu kaaraange jeex na. dii boobu nag borom xam-xam yi nettali nañ ne buur bi ñëwoon na fi ba agsi fi bi mu fi agsee daal di yebal soldaar mi képp koo xam ne dugg na ci biir gis lu ko tiital mu daal daw génn. ba tax na dañoo mujjoon fatt xunt bi kenn dugg fi woon diir bu yàgg boobu waaye loolu yëpp ci biiru wuute la am waaye ñun dañu jàpp mooy bañ fay nalaw kenn fekku leen fa ku dul yàlla sunu borom ak sàmm bi nga xam ne moo leen fi andi woon. ci noonu nag la yam li xane man bàyyil leen ma dem dinaa jéem a làqatu ba duñu ma gis ma jënd lu ñu lekk noonu nag ñoom ñu daal ci dëppook moom ci loolu waaye ànd ak di ko moytuloo lool ngir duñu ko gis ñu ñaan sunu borom. ngir duñu dajeek soldaar yu kàccoor yooyu Yamlixa bi mu génnee ba dugg ci dëkk bi daal waaru ne waaw man damaa ne ci ay gént wala damaa xamul fi ma nekk wala damaa réer moo ne de réeru ma yoon bi ma jaar yoon boobu la ana waa dëkk bi ana Dqiyanos ak soldaaram yi ana xërëm yi nekkoon ci dëkk bi dëkk bi léegi ni mu naatee nii nag waaw xoolal commerçant yu bari yi xoolal njaay mi xoolal kër yu rafet yi xoolal nit ñi ak ni ñu solo dafa mel ni beneen monde laa nekk bu bokkul ak bi ma dëkk ana sama kër ana sama kër famille ana samay mbokk ana soppeeku gii am ci dëkk bi lu ko waral noonu yam li xel daal di jommi daal di waaru lool noonu mu ñëw ba ci benn commerçant bi mu agsee ci moom bi mu agsee ci moom daal di koy nuyu bi mu ko nuyoo ne ko man de damaa bëgg a jënd lu ma lekk mu ne ko waaw lekk am na fi mu daal di génnee xaalis jox ko ko bi mu ko joxee. waa ji ne ko waaw xaalis bi nga ma jox na xam nga ko xanaa dangaa juum xaalis bu yàgg bii lii de xam naa mën na téeméeri at wala ko ëpp lii de xaw ma ban xeetu xaalis la ci noonu yam di xe ne ko xaalis bi yàggul de man démb rek laa demoon dam làqatu ci bërëb bi ma ñëwee daal di jox xaalis bi pour nga jaay ma paa bi nag xàmme na xaalis bi ne xaalis bi de ci sunuy maamaati maam déggoon naa ko jamonoy buur bu kàccoori boobu di di xëyaanoos yam li xat daal di tiit du mu déggee loolu ne ko buur bu kàccoor di xiyaanos te man démb rek laa génnoon daw làqatu ji ngir mucc ci buur bu kàccoor boobu su ma la déggee ni ngay waxee dafa mel ni loolu lu yàgg la mu ne ko waaw loolu kay lu yàgg la mbaado yéen yéen ay nit ñu baax ñooñu dawoon làqatu ji nga xam ne yéen yéen a dawoon ngir diina ngir yàlla sunu borom noo loolu mën ta nekk daal di tiit mbooloo mi fi taxawoon yëpp daal di tiit mu ne ko nañ dem ci borom dëkk bi moom mi nga xam ne xam na histoire dëkk bi mu lijjanti say mbir yow moom say mbir lu yéeme la waaye nit ñi moom mënuñoo gëm mukk lu ñu gis ndax loolu moom xel mënu koo nangu biñ ñëwee ci borom dëkk bi borom dëkk bi daal di koy nuyu ne ko li nga nettali nii de dafay joxe màndarga ne yow yaa yam lii xa ndax yam lii bi nga wax ne moom nga tudd kii nga xam ne moo leen jiite woon noonu la tudd yeneen ñaan ni kenn ki Maximiliano soo tudd kenn ki Galanos seen histoire livre lañ ko bind fi mu toll nii yéen yeneen reyukaay dëkk bi ndax yéen a dawoon làqatu ji te yàlla rek tax seeni sët man mii ci laa bokk man li tax ñu fal ma nekk kilifa ci dëkk bi mooy ñi nga xam ne ñooy càllaw la ci yéen ñoom ñooy kilifay dëkk bi tey ñi nga xam ne ñooy banqaas ci yéen ñooy kilifay dëkk bi ndax yéenay sangu nit ñu baax ni yéenay reyuwaay yi nga xam ne ñëpp yéen lañuy rey roy noonu borom dëkk bi daal di ciit ne ko ana yéen fan ngeen nekkoon noonu ñu daal di sujootal yàlla ànd ak jaaxle lool waaye seen gëm yàlla dolleeku ñu xam ne lii mujisa la kemtaan la boo xam ne yàlla moo ko def boroom dëkk bi ne ko yëbbu ma ci sax àndandoor yi ma gis leen ndax ngeen mën a ñëwaat ci dëkk bi ci noonu ñu daal di ànd war fas bi ñu ñëwee yam di xar dugg ci biir daal di koy wax àndandoora mi xamal leen ne leen nelaw nañ fi lu ëpp ñetti téeméeri at àndandooram yooyu dal di jaaxle lool dal di waaru noonu ñu daal di tudd yàlla seenu gëm yàlla nag gën a dolleeku dolleeku ca lañ gëmoon yàlla mu nekkoon mbir moo xam ne mbir mu yéeme la woon noonu ñoom ñett daal di ànd ak borom dëkk bi dem ca dëkk ba ñu nekkoon ñoo xam ne ñu ñu màggal lañ ñu taral lañ ca dëkk booba xam nañ ne nag lañ doon xeex mooy fexe ba diine ja tasaaroo ca dëkk ba yàlla defal na leen ko sonuñ ci yàlla daal buur bu màgg la moom mooy kenn te moom rek moo am kàttan bii yoon nag ñu daal di ñëwaat ci xunt ba daal di fay tëddaat nelaw seen nelaw gii nag noon lañu ñu jaaree yeewuñu benn yoon lu dul yowmal qiyaam noonu la ñuy jaaree nag daal di wujji seen borom nekk ñu taxe nekk ñoo xam ne seen tur du fay ba mukk nekk itam ñoo xam ne ñu ñu màggal leen ci seen dëkk bi ñoom ak seeni sët ak seeni njaboot waaye borom dëkk bi nga xam ne seen xarit la nag bi mu ñëwee ba fekk leen ñu tëdd daal di faatu mu daal di tudd yàlla ànd ak naqar lool moom mi nga xam ne mooy boroom dëkk bi te léegi nag ñoom la def idol ñoom la def xarit di ànd ak ñoom noonu mu daal di leen andi ci xunt bi bi mu leen àndee daal di fatt xunt wi ba noppi digle ñu defaral leen barab bu taaru ci buntu xunt wi mooy barab boo xam ne day feeñal seenub tur di feeñal seen jëf ba keroog yawmal xiyaam kenn du leen fàtte muy aaya boo xam ne yàlla def na ko ci kaw suuf mooy xis sa asaabul kahfi li nag nekk mbir mu yéeme liñ ci jàngatee nag mooy yàlla suñu borom kenn la ku am sañ-sañu def lu ko neex te kenn mënu ci dara waaye li muy dëggal mooy képp koo xam ne néew nga doole ci xeexal sunu boroom jàppal ne dinga am doole ci kaw képp koo xam ne néewal na la doole ndax yàlla rek moo am doole moom mi nga xam ne moo mën a fay mooy fayaakoon bu màgg bi te it mooy jëggalaakoon bu màgg bi te noo def yàlla rek noonu la la yàlla di def ku nekkal yàlla yàlla nekkal la tax na ñii bi ñu dëddoo suñu boroom yàlla tàggat mbindeef yi ñu defal leen bërëb bu taaru nii muy misaalu xéewal gi nga xam ne moom lañ war a fekki fa ñu jëm ndax wolof nee na cin bu nar a neex su la xet gi xeeñee rek nga xam ko kon nag lii moo nekkoon histoire asaabul kahfi ngeen àndoon ceeg seen mbokk seen xarit Cheikh El Hadj Ndiaye Touba Taïf